bay baxuñu nday ak bàyyi tubaab yi ñoo bax ba ñom lañuy ñuy ci xalat ñom lañuy ñuy ci gisin ñom lañuy ñuy bo stricté jaar fa nga war jaar sax ñu non mom dafa tubaab yi ki dafa sévère allemand la de mais c'est dommage té kenn ku ci nek di fëgg sa bopp ni ñun diiné yi bax ñun ñoko ko en tant que chrétien wala musulman ba nopi lu bax mom en fait ce sont les autres où sont les valeurs là qu'on nous enseigne wala ñun dañ koy jang seul moko rek.

peut-être danañu may deux ou trois questions euh, ñu mën a ñu mën ci tontu man a yëkkati jotaay bi ndax encore une fois toogaay bi yàgg na am na ñoo xam ne man bi may ñëw sax fi laa leen fekk ak matinée bi ni mu méttee te it ñu ci bari seen liggéey yàgg nañu jëflante ak yéen rédaction yi mi ngi leen di xaar donc duñu leen teewaat lu yàgg mais message bi daal mooy sénégalais yi nañ yeewu ci nax yi ñuy nax. ak xeeb gi ñu acteur politique xeeb xeeb nañu ba yegg ci ñom bu ñu un différent ba ay sénégalais deese sax dañuy jékki-jékki waat rek ñu def nañ loi d'amnésie. une loi d'amnistie j'allais dire moi une loi d'amnésie. man ak yow jote nañu nous sommes des acteurs politiques nous sommes des citoyens hors classe yeen nak ay Samba Sow Bali ngeen ku ci dóoranteeg nit sax da ngay dem kasso mais ñun man nañ jote ay nit dé ci ay nit ci bari mais loolu ci perte de profit lañ koy delo rek amul problème en tant que tant que mi ngi en tant euh, acteur politique donc loi d'amnistie la ni jël koy kon ñu ni réew mi ñu ñëpp fa amul nax on berne comme disait le maréchal Pétain bu leen ni man ak léegi laa ko doon ngañ waaye dafa ni rek damaa bañ fen yi nga xam ne yàgg nañ ko feñ te indiwul lu dul jéyee ci réew mi je hais ce mensonge qui vous a fait tant souffrir ñun ñëpp a war a bañ nax yi ñuy nax jàppee ñu ay xale yaakaar ne ñun xamuñu li nga xam ne moom mooy li xew askan bi ëpp na loolu parce que pouvoir yi ñu am yëpp muy lu éphémère ku nekk jaar na fi mais benn diir la mais ñoom ñoo ñu koy jox kon nañ leen jox cër bi ñu moom mën na nekk sax fi ne lu jëmati ci concourir pour laaj réew mi ñu jagleel ko parti politique yi mais lu jëmati ci nationale dañ ko war a bàyyee ak askan bi parce que souveraineté bi ñoom ñoo ko moom. donc loolu daal mooy message bi askan bi nañ jël seen responsabilité xam ne bu fekkente ni ñoo ngi gëm ba tey ni dañoo war a wékku ci rek nit ñi fu ñu leen jox nit ñi fu ñu leen joxoñ ñu jëm fa lu ñu leen def loo ñu def ko nañu xam ne la ñu war a doon nag doonaguñ ko ba tey. loolu moom mooy li am parce que nit ku doy waar la yàlla teg ko comme attend ku ko wuutu ci kaw suuf potentialité yu baree bari mu def ko ci moom kon kooku daf ko war a explorer war ko jëmmal pour le bonheur euh, de son peuple et de ses de ses prochains loolu daal moom mooy kàddu yi donc on vous laisse voilà et effectivement maa ngi ko doon fàtte sax xam nga ñun on a fait des propositions de loi ak que sàmm on en a fait deux euh, bon xeyna sax loolu waxin la ndax député rek mom mo meuna def proposition de loi mais nous nañu ba jël une proposition de loi entre ak ay député c'est le lieu ma gërëmaat ku melni l'honorable député Mamadou Lamine Diallo question bi biñu ci il a été toujours à nos côtés l'honorable député Mamadou Lamine Diallo Goudi ak bëccëg waxtu bu ne fu mas a taxaw mi ngi and ak ñun ci gëstu ci taxaw ba ñaari proposition de loi yépp moko porter souvent nak dañuy wax ni sax dañ ko jël doon ko xeexee waaye ñun proposition de loi bi ñu njëkk en deux mille vingt et un décembre deux mille vingt et un mais lolu ñoo ngi sukkandiku mouture bi doon ñëk tambalé tàmbalee liggéey un député de l'APR moom moko défon muy l'honorable député bi dëkk Hein? Amadou déposé une proposition de loi criminalisant l'homosexualité en 2016 mieux il y a une autre proposition de loi bu déposée en 2008 c'était sous le président Wade criminalisant l'homosexualité portée par quatre députés c'est ça c'est le cadet de nos soucis na le président Macky Sall parce que président Bini Bindo mu bindoo exécutif bi moom parlant, parlement judiciaire bi moom moo yor lépp dama dan wax ni président Macky Sall ñun loi bi su bàyyi woon mu jall parce que askan wee ko demandé woon man paré won na pour jappalé ko koko xexumako té te rek la ko yéné parce que bu réussir limu bëgg ci réew mi ci lu baax mais lolu man dama ci bénéficier sama njaboot bénéficier wu amuñu benn intérêt ci xex ko kon ñaari loi yo wax proposition de loi yo xamni duguna bureau assemblée nationale lañ ko bloqué def ci maa tey goo xam ne ci ngay gisee ni assemblée nationale il faut ñu soppi ko parce que ñoom dañoo jalgati yoon te ñoom ñoo war a xàll yoon parce que bureau bi amul prérogative boobu fenn rek la war a mën a saytoo proposition de loi wala amendement bu fekkente ni dafay teg beneen charge bu bees bu muy créer wala mu mu gën a diisal li askan wi euh, li état bi yan woon ba pare ci gafakam ci la euh, ni ko loolu moom nañ ko taxawal wa illa ñu demander député yi ñu proposer leen fan la jëlé jëlee pour mëna taxawal loi boobu té ñun loi bi ñu def amul incidence parce que dañu modifier disposition bu fi nekkoon tout simplement